may ak dal di dëgëral sa xol wa rattalnaahu tartiila kon la shakka ni ki nga xam ni nee na dafa bëgg am ak sabaat sax ci li mu ne te ngoyul ci alquran góorgóorluwul ci quran jàng ko jàng lu jiwu ko kooku mi ngi bëgg a nax boppam nag dëgg la yow mi nga xam ne ab ndongo nga da ngay jàng leneen est-ce que bu fekkee école tëj na quran bi dana la jaral nga sukk ci quran doo ko jàngal sa bopp de gis nga benn masque rek benn masque mën nga koo soppi rek wax lu bona bona bona bon quran ñun ni ni jàngee quran sax salaf du noonu lañ doon jàngee quran démb ñoom dañ doon jàngee quran bi wasilati talqin talqin am na imam ju mag ju ngeen dégg ci aimatul hadis ku ñuy wax ibn al mulaqin tur woowu sax daf ko doon bañ ndax paa boobu bàyyi jiit leem la al mulaqin mooy waa ji nga xam dafa talqin quran amul téere amul dara yoruma yoroo quran jaa ngi ci dënd bi waa ji day toog nii di wax nga jàkkaarloo moom di ko xool di xool gémmiñ gi ni muy xalxalaat ni muy génnee ma xaarij yi su ko defee ñu ne laqana yu laqinu talqiinan ma ngay talqiin quran ja kon ñoom nun lañ doon jàngee day wax ngay déglu muy wax ngay déglu soo paree nga jóg mokkal nga jeex na ñoom noonu lañ moo tax ñu nag ibnal mulaqin doomi ki nga xam ne moo doon talqiin quran bi est-ce que jaral na la yow moo xam ci oustaz bi ci koñ bi la moo xam sa mbokkum ndongo mi nga dendal la moo xam école ba la moo xam daara ja la est-ce que jaral na la nga sukk nga jàng quran am nga mooyee boo mën a jàngee quran waaye déedéet dafa fekk ni maanaam quran borom bi subhanahu wa taala am na ci fayda ju doy ni nag boo ko jàngut nag gën a ko roof ci dënn yi alquran bokk na ci aqidatu ahli sunna wal jamaa kalaamullahi minhu badaa wa ilayhi yaud ci moom la tàmbalee ñëw mi ngi nii balaa àddina tukki nag yàlla dina ko yëkkati mushaf du fi des dënnat ku ko mokkalit du fi des quran jeex tàkk ci kaw suuf moom la borom risala muqaddima risala di wax ni minhu bada wa ilayhi yaud kon mbokk yi quran day saa boo xam ni yëg nga xool nga sa bopp gis ni yow sawaroo ci di ko jàng bariwoo loo koy jàng soriwoo ci doo ko tëddëbbur xamoo lu muy teg doo ko jullee guddi wallahi léena nga tiit ci sa bopp jéng yomb na la lool nag tomb boobu mooy tomb bu njëkk bi ci te mooy tomb bi gën a dëgërit ci wasailu tasbit ñaareelu tomb bi min asbaabi sabati ala sunna iljaamu nafsi ala al ixlaasi walmutaabaati kama amara kama amarana rabbuna subhanahu mooy ngalaat bakkan bi nag nag ko nag ci fexe nag di muy sellal xanaa kon dafa mel li ma doon wax ni jaamu yàlla bu ñu la lii ak jaamu yàlla mën na indi sabaat o honkay waaye lan moo fi indiwaat ixlaas xam ngeen ni sabaat bokk na ci mbokk yi lii tax nit ki ñàkk ko mooy nit ki dafay dem nekk ci mbir ba mu yàgg tayal dikkal ko yonjax dikkal ko wala fitna dikkal ko wala bàyyi xel nit ñi dikkal ko yu demee noonu am na ñi nga xam ne ñoom dañuy sellal nga xam ne seeni wax yàlla moo tax seeni jëf yàlla moo tax boo leen gëjoon a gis daawaati jéeg ba ren ka nga gisoon moom ngay gisaat soppeeku du am am na koo xam ne fi mu nekk nii ñàkk gee sellal sax na jamono ba muy gis nit ñi du bokk ak bu gisul nit ñi jamono bi ko nit ñi naan waaw góor du bokk ak bañ koy jarax ak di ko tasnif comme ni ngeen ko xamee ci jamono bi di wax ay wax jamono bi ñu koy jox du bokk ak bu ñu ko joxatut jamono bi mu teewee du bokk ak ba mu tukkee waaye ki doon ixlaas moom daanaka boo ko gëjee gis dafay mel ni gis nga ko léeg-léeg olof yi sax di ko léeb da ngay dégg duñ ngaa gis diw mu ne am i kooku de moom ka nga gisoon ba léegi manquut moom nam tolloon rek lay toll ba léegi loolu ci wàllu àddina lañ koy waxee ci wàllu sunna it loolu dafa am dafa am ñoo xam ne nañ meloon ba tey doolee ko rek waaye doo gis wàññeeku te loolu nag li koy indi moom mooy al ixlaas mooy sellal te yàlla tax bakkan lim gën a bañ nag ku ko ca yar mooy sellal bakkan lim gën a bañ ku ko ca yar mooy sellal ndax contraire sellal lépp ay bànneex la te léppi bànneex bakkan da kaa bëgg moo tax foñ bakkan bi yeewu ko ngalaat ko ah di ko xëcc nag di ko jubbanti jëmale ko ci yoonu sellal waaye bis boo ko tegee ci yoon wi nag ci ngay yëg ni ci ngay am yërmaande ci ñi dul sellal ndax da nga yëg ni ku dul sellal ndekete moom rek a sonn na say wax say jëf say dem ak say dikk say jëflante zahiran wa batinan sa nekk ci biir ne gis nga boo gisee nit ñi bal aimatu salaf dañuy wax ni bokk na ci mandargam wane nit ci sellalam àgg na ca njomboxtal ga mooy koo xam ni moom ay yu baaxam sax lay bëgg muy nëbb mel na magum salaf nee naan lan moo tax du ngeen sawar ci di siiwal seen yu ñaaw comme ni ngeen sa ci ngeen sawaree ci di siiwal seen yu baax doomu aadama lan la sawar ci di ko siiwal yu baaxam man mii toog fi mu nekk nii bu kenn ci woon wax waxoon sama benn baax baax rek seytaane dikkalu ma commencé xuggali ko ay mbagg ndax damay yëg mbégte loolu mooy mandargam do am contraire am mooy nas ay ma salaf meloon da ngay gis koo xam ni benn lu baax nga koy waxal mu mere la ci weer benn lu baaxam ngay tudd mu mere la ci weer du la tudd ba yow yaay mujj demaat jéggalu ko nga gis koo xam ni benn lu baax nga koy waxal mu tux est-ce que ñun yegg nañ foofu man wallahi léeg-léeg bu may comparé dund ko suñuy dund man damay tiit nan ñun est-ce que duñ ay munaafiquun ndax li kenn ci magi salaf naan maa arabtu nafsi fi alqurani illa wajadtu nafsi min arraasixiina fi nnifaaq mu ni man saa bu ma jàngee alquran daf may wóor ni ca gën a gën a nuur ci naafiq ca laa bokk kenn ku ne ci ñun fi ne buñ la waxee lu baax loo defoon ñu wax ko ba keneen dégg ko li ma yëg ngeen di yëg da ngay kontaan te loolu feebar la danoo feebar da ngay kontaan waaye ñoom wallahi nit da doon tuxu yaakaar naa xistat ibn al munkadir bu dul ci jotaay bi am na yenn jotaay yu ma ko mos a nettali sa ñaan ak biig gi rek waa ji for ay kaakaam tuxu génn taarixam fa la jeex aima salaf ñi koy tarjamaal ñëpp waxuñ la fu mujj dañu jékki-jékki gis ñee ne mes ci àddina bi dem na yoon ndax benn lu baaxam loolu luñ ko tuddal est-ce que yow yaa ngi fiir di bañ ñu tudd sa yu baax te gis nga seytaan dafa bokk ci pax yi muy lal ci sa kanam pour nga sa fakkatal ci mooy gis nga bu ñu lay tuddal ay mbaax mbaax seytaan da koy jël di ko enquête di am fu mu koy denc ci xol bi ñu tëddaal beneen baax moom fu ñu ko denc ci xol bi gis nga bis bu ci amee ñax ma ngay dugg ca ñeent mi ngi tàmbali de ah yow kat kon ku baax nga yow kat kon alhamdulilah sant yàlla yaata ne ñoom jiw yaata ne nangam nangam su ko defee bakkan bakkan bakkan la bul bul génn sa bopp ci buntu bi may wax bu ko defee bakkan bi commencé jàpp ne ah moom kat am nay mbaax mbaax yi naan déedéet jàppal ni sa dara baaxut sa lépp sa fan la nëppal ndax amaan li nga jàpp ni lu sell la sax yàlla moom moo xam innama yataqabbalu allahu min almuttaqina hal anta min almuttaqin est ce que ci nga bokk est ce que yàlla mi ngi lay nangul jëf ji nee nañ lu baax la nit ñaa ngi koy wax nit ñi li ñu wax est ce que loolu la yàlla wax subhanahu wa taala loolu nit ki di ci tarbiya boppam nag dafa bokk ci mbir yi gën a tax tiitaange di ko dugg te fii tiitaange ngi lay dugg rek yaa ngi am sabaat kon sàkku ngërëm wala nit ñi kontaan ci yow wala ñu mere la daanaka ñooy bokk ci yow da ngay jàppee nit ñi rek as asxaabil xubur comme que ziyaara ji bàmmeel ku jëm armeel ziyaara ji moom yaakaar naa lay nekk ci sa xol mooy tiitaangeeg xalaat bis boo fi tëddee waaye doo fi nekk di tiitaroo ko wane ay jëf kon jàppeel nit ñi noonu beneen bi ci des muy mutaabaatu rasul sallallahu alayhi wa sallam te moom moo ànd ak al ixlaas ndax ixlaas mook mutaabaa ñaari seex la ñuy judd ci benn biir fexe ba sa yëpp sa lépp nga di ko def ngir sunna borom bi subhanahu wa taala tàggat na sunna tàggat goo xam ne képp ku ci mooy it la Abdullah ibn Mas'ud waxoon ca Qur'an danañ ko wax ci sunna képp ku ci mooy yi nga xam ni moom mooy yiy dévié waate yépp yàlla mën na lay dimbali nga mucc ci ndax sunna moom comme ni ko imaamu daaril hijra doon waxee mooy gaal ak yonent yàlla nuux ga yéeg mucc wuute alku rek yéeg mucc wuute al ko kon nit ki sax ci sunna góorgóorlu te di ko jéem a xam loolu daf koy dimbale ci am ak sabaat kon góorgóorlu ci lépp looy wax lépp looy jëf say jaamu yàlla yi ngay làq na gën a rafet yi ngay feeñal loolu lu am solo la te loolu nag yaa ngi koy liggéey di ko di ko tàggat di ko yar boo wéetoon ci néeg bi di naafile mu wóor ma ni kenn newu fi keroog jooja laay gën a def effort sax ci naafile bi na gën a baax samay jaamu yàlla dama autorisé wul kenn kenn laa may autorisation pour mu dugg ci déedéet samay mbiri àddina nag mën nga ci àddu waaye samay jaamu yàlla li nga xam ne samay jaamu yàlla samay def-def samay wax-wax samay nangam bu ca dugg lii kenn ci suñu masaayix yi doon wax léeg-léeg nit ki dana def dara sax ba mu waree ma ngay séentu ñu gërëm ko ca loolu moo lay wan ni feebar am na te yëpp ay feebar la waaye feebar bi li koy dindi. mooy wasaa'il yi ñuy wax saa bu amee surtout te Qur'an di ko jàng da ngay xëy xëy yi yëpp yaa ngay dañ doo ko yëg ñetteelu tomb bi ci wasaa'ilu sabaat ala sunna ملازمة سماع سير السلف الصالح والأنبياء والصالحون من قبلهم للتأسي به taqoo nag di jéem a xam ak a jàng siiratu salaf su ma ne salafu saalix mooy yonent yàlla ya saalixun yi nga xam ne alxuraan tudd jun tudd nañ wala mu junj leen ak ñi nga xam ñoo ñëw ci saxaaba ya ñu ci seen ginnaaw li tax asi bihim li tax ñu boole ci tomb boobu da dañoo seetlu ni anna al uslub al qasasi uslubun jazaba لذلك استعمله الرحمن في كثير من المواضع في القرآن metatu nettali nettali ay qisas nettali ay qisas méthode la boo xam ni borom bi laa yàlla subhanahu wa taala sax daf ko jëfandikoo moo fees yàlla alquran sax altaxlil waltaxrif walqasas walaxkam alquran daanaka noonu la tëddee waaye uslubul qasas yi borom bi daf ko baamu ci alquran lu bari lu tax nga xam nga nettali dafa am lu muy ñoddi ci xol léegi fii tey rek boo génnoon fii nga romb fukki nit yu taxaw ñuy nettali benn mbir mu kéemaane ci mbiri àddina yi yow sa yoon néew ci da ngaa romb rek xamoo leen ñaar yi di nga ci def benn di nga taxaw déglu mbaa ngay romb di ma yàlla nopp loolu am na wala amul li ñuy wax sa yoon da cee nekk wala déet sa yoon nekku ci waaye doomu aadama la yàlla bindee tabi'am fitraam ci boppam moo bëgg nettali loolu la borom bi xam moom mi bind ni ala ya'lam man xalaqa wa huwa al-latif al-xabir loolu tax alquran qisasu al-anbiya qisasu salihun qisasu talihun saay saay si ak ñi nga xam ne dañoo jàddoon borom bi subhanahu wa taala di nettali seeni jaar-jaar kon al uslub al qasasi dafa bokk ci méthode yi nga xam ne dafay sax tax nit ki mën a sax ci sunna maanaam nag di góorgóorlu di taqoog li nga xamante ni moom mooy alquran yi mu cay nettali ci sunna nit ñi borom bi mi ngi wax ni wa kullan naqus wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'idatun wa dhikra lil mu'minin suratu hud gis nga baatal sabab ñëwaat na ci aaya boobu sunu borom ni wa kullan naqussu alayka mboolem ci yiñ lay nettali min anba'i ar-rusul liñ lay nettali ci xabaar yonent yi ak yonent yàlla yi fi jiitu woon maa nu sabbitu bihi fuaadak bokk na ci lii tax nga am sa baat undur xoolal baat boobu maa nu sabbitu bihi fuaadak day tax nga amul sax baat ak sa baat bi ngeen tànn muy mawduu bi borom bi subhaanahu wa taala dañuy nettali yi ñuy nettali xabaari yonent yi ak ñu baax ña saxaaba yi ak ñooñu day waral nit ki am ak sa baat ndax kat da nga xam ne mbir mi kat ngoyoo ci yow rek am na ñeneen ñu ci ngoyoon ba xëy faatu wuy seen borom jiitu la sunu borom ni wa mawidatu wa dikra lil muminin waar la fàttali la xuppe la ñeen ñi nga xamante ni ñoo gëm yàlla subhanahu wa taala comme muy suratu Hud ay fukk ak ñaar kon boo toppee alquran da ngay gis tabaat gan doon wax kon tombab jàng quran ak bii duggalante waat nan mënee sula lim yëpp ndax alquran moo defees dell waaye wa bil misaal yaqdaxu al maqaal nan jël lenn ci ay am fi la rek nga xool ni borom bi subhanahu wa ta'ala junjee ni sabaat dafay jur dafay juddoo ci nettali yooyu jël ala sabili misaal Moussa alayhi salaam te bokk na ci li tax ma njëkkee mooy xam ngeen ni Moussa moom rek moom rek moo am ci yonent yàlla yi koo xam ne xissaam dañ koo détaillé d' accord Youssouf am na saar woo xam ne moom dañ ko ko jagleel Moussa amut loolu waaye li mu am daanaka gën naa yaatu la Moussa Youssouf am. ndax Moussa ab juddoom lañu tàmbali ba ak gannaaw ak nubuwaam te loolu moom rek moo ko am ci anbiyaullah kon nettali Moussa ci biir alquran dafa bokk ci yi nga xam ne nit ki su koy jàngkat di xam li muy jàng lu mu doon loolu da koy jural ak sabaat borom bi mi ngi nettali ci lenn rek ci dundug Moussa bi Moussa joteeg Firawun ba départ di ñëw ci géej gi borom baa ngi nettali ci suuratu Shu'araa di wax ni falammaa taraa al-jam'aani qaala ashaabu Muusaa innaa lamudrakuun qaala kallaa inna ma'iya rabbii sayahdiin Firawna topp na Muusaa Muusaa ay fas lañ war yore ay nit yoo xam ne ñii mënuñoo jàll te géej gi ñii mënuñoo téye undur ila sabaati fi haadha al-mawqif yéen yàlla Moussa ànd ak aw nitam ba jub géej dëpp amatul parce que bu ñu dëppee dañuy dajeeg Firawna te dañu leen faagaagal jàdd ci tefes amul parce que kon ñu topp leen xuus ci ndox mi amul parce que yëruñu gaal bu ñu yéegee kon asbaab yi jeex na nit yi yonent yàlla Muusaa yi ni ko inna la mudrakuun geesul gaa yi ngi waaj yegsi de dañuy dab de mu ne leen kallaa dee du ñu dab mukk inna maa ya rabbi sayahdiin mu ne Muusaa bi muy wax loolu borom bi defal nga ko ndimbal li mu ko li mu ko defal ni ci géej gi xar boobu amul de waaye boo boo boo mu maarasaa benn mbir jaar ci mbir borom bi dimbali la nga jaar ci borom bi dimbaliwaat la ba nga xam ne lii mooy dëgg loolu da lay muñ fit loolu moo dal Moussa ndax am Moussa ba am sànnee yat wa yat wa soppaliku jaan wala mut bi ren dafa daw parce que keroog le premier jour moo tax mu daw suñu borom ni ko aqbil kaay wala taxaf bul ragal inni laa yaxaf ladayal mursalun man ku du ma yónni ab ragal Moussa ñëw taxaw suñu borom wan ko yam koy wan moo tax ci ëllëg sa ba mu demee dajeeg Firaaw na dawut borom bi subhanahu wa ta'ala dimbali ko ci lu dul benn yoon ndax keroog bañ dajeeg firaaw na borom bi dimbali na ko ca firaaw na kon tey dana ko dimbali mu ne leen kalla déedéet du mu dab mukk inna maa ya rabbi sa yahdin maa ngi ànd ak sama borom maa ngi ànd ak sama borom sama borom yàlla dana ma dimbali moo tax ci loolu la borom xam-xam yi lii istinbaat di wax nañu ñu àndoon ak yonent yàlla Muusaa day Abubakar dimbali leen aw demin ndax Moussa la ne kalla inna maaya adafa damira ila nafsi inna maaya rabbi sa yahdin waaye yonte moom dane inna allaha maana yàlla mi ngi ànd ak ñun maag yow maag aw maag yow moo tax Aboubacar wax dëgg yàlla gën leenu demin ci buntu boobu kon ndax bokkaale nañ ko yóbbu kon loolu da lay wan ne ak sabaat nit ki bu ko xësee am lépp lu ñëwati ci kanamam rek dootul tiitati parce que day fekk yàlla lay teewal ci kanamam subhanahu wa taala boo xoolee saxaaratu firawna tamit kadalik njabarkat ya kara bi nga xamante ni lay xew xew na ci xissa bu gudd comme ni ngeen koy faral jéggi ci tafasir yi ba Moussa alayhi salaam gañe firawna ci bi maana al kalima njabarkat yi daal di tuub dugg ci l'islam jébbalu yàlla amanna bi rabbil alamin rabbi Moussa wa Haroun firawna ni amantum lahu qabla an aazana lakum innahu la kabirukum alladi allamakum sihra fala sawfa taalam ba aaya di jeex waaye Firawna dafa menacé njabarkat yi xoolal bu baax koo xam ne huit heures ci suba bi ngay xëy si ci buxaaba yi gën a mag ci àddina nga bokk balaa jant bee soo nga bokk ci muwahidun yi gën a mag ci àddina benn boobu ñaareel lan ngeen xam ci kuy doog a tuub di doog a gëm ak kooku ngëmam ni mu war a wayafee ba pare muy am mawqif bu dëgëri nii di wane ko am ci sunna si juróom fukki at bi Firawna indi ay menaces dama leen di damay dagg sa loxo ndeyjoor dagg sa tànk càmmoñ wala bu ma daggee sa loxo càmmoñ sa tànk ndeyjoor laay dagg la wu xabta am na daggate gu ñaaw dina leen fajaraat ay déeku mu arjulakum min xilaaf mooy xilaaf mooy dagg bi dagg bële wala usallibannakum ajmain te du ma yem ci la damay pare pendre leen ci kaw wala usallibannakum fii juzu ay ndax na leen fendre ci tàndarma yi wa léegi xoolal li mu ko wax lépp waaye loolu lépp ànd ak xoolal kii doog a tuub nga xam ne boo ko mënatee woon mën naa dellu ci gannaaw foofu maa ngi koy wax ngir lan léeg-léeg nga dégg kuy doog a góorgóorlu ci sunna ñu di ko fitnaan ñu naan xëy na li tax mu bàyyi mooy nangam déedéet nit ki buy doog a war a tàmbali sax bu dee leeru iman moo tàbbi ci xolam dafa war a mën a supporter xoolal gaa yooyu lan nu'siraka ala ma jaana min al bayinat gis nga Firawn lii ngay wax dugg suñu nopp yi ñun duñ la gënale mukk duñu la gënale ak li nu dikk ci ay njub walladi fatarana te suba ga huit heures ci suba lu ñu doon giñee bi izzati firawn subhanallah wallahi gis nga ngëm bu tàbbee ci xol lu ne mën na koo def nit ñii bul fàtt ne ba léegi ay njabarkat yu mag lan woon tey rek lan doog a xam sunna ci suba si dañ doon wax bi izzati firawna parce que moom lañ gëm ni mooy yàlla waaye ci saata Moussa est ce que foofa dafa taxaw di jàngale waat masalam waat foofa Moussa da ko faa jàngale masalam sabaat daf koo jàngale masalam wakkilu ci yàlla daf ko déedéet wala bii fatarana giñ nañ ci ki ñu sàkk ñu tuub jëm ci moom muy yàlla faqdi ma anta qaad defal la neex innama taqdi hadihi alxayat addunia nekk nag iman bi léem al axir ñëw na léegi kon gis nga de innama taqdi hadihi alxayat addunia addina doo nga mën a àtte kon am na feneen foo dul àtte foofay àllaaxira kon amanu bil yawmil axir ci saaka te discours yëpp xam ngeen ni xëdd fa bu Moussa di fa fa def inna natmau an yaghfira lana rabbuna xataayaana istigfaar ñëw na an kunna awwalal mu'minin tasaabaq ñëw na ilal xayraat gis nga booy toog di seetlu alquran di def tadabbur ci ayat yu mel noonu wallahi loolu mooy maa nu sabbitu bihi fuaadak loolu mooy tax na nga gën a am confiance ci li nga nekk loolu mooy tax nga gën a dëgër loolu mooy tax nga gën a gëm mooy li yatma inna qalbi ja Ibrahima doon wax boo ñëwee ci asxaabul uxdud gis ngeen ko wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi al aziz al hamid ay nit lañ yoo xam ne xam nga sawara saa ngi nii ñu war laa jël sóob la ci biir ak lakk-lakk ni mu méttee waxuma la ñu sóob la ci sawara ab lakk-lakk la ab lakk-lakk nga xam ne mën naa laal rek fii mu wóor la ni yow weddi sa pas-pas mooy tax nga mucc dëgër ci sa pas-pas mooy tax nga tàbbi ca sawara sa sabaat rek moo la mën a dimbali foofu waaye xoolal sabaat gañ amoon gëm nañ yàlla wa ma naqamu minhu illa billahi al-aziz al-hamid qutila ashabu al-ukhdud annaari zati al-waqud id hum alayha qu'ud wa hum ala ma yafal bi min shuhud waaye kun tàbbal rek keneen day daal di ñëw daal jub kon sabat boobu ñu amoon bu fekkee yaa ngi jàng quran di ko settantal am fi la yi ci am ah kon da ngay xam ni kon ndekete kat am na ñoo xamante ni amoon nañu sabat bu baax a baax a baax ci góorgóorlu ci mbir yi huut alayhi salaam xam ngeen huut ku néewoon doole la ci aw xeetam gars yi dañ koy wax laqad kunta fiina marjuwan qabla hada yow commencé woon nañoo am ci yow yaakaar ndax yaa ngi tàmbali di ñëw jàkka ja di def lii di def laa wax ay wax yow ndax da nga ñuy digal nangam nangam yow kat danañ la def wax lu wax lu wax loo xam ne gémmiñ ëpp na mu di ko génne wax ko lu bon ak du saaga danañ la faa faagaagal de mu ne waaw faagaagal leen inni tawakkaltu ala allahi rabbi ma min dabbatin illa huwa axidun bi nasiyatiha min duni illahi fakiiduni jamian summa la tunzirun man kenn laa yéen mbooloo ngeen def leen seeni pexe man faalewuma leen lu tax faalewuma leen inni tawakkaltu ala allah man dama wàkkilu ci yàlla wàkkilu ci ma wàkkilu ci moom daf maa gëmloo ni maa min daabatin illa huwa aaxidu bi naasiyatiha dama gëm ni kenn ku ci nekk yàlla moo yor sax nos bu ko neexee meetar doo ko dox kon man wàkkilu naa ci yàlla def leen lu leen soob fa kiiduni jamian def leen lu ngeen man summa laa tunzurun bu ngeen paree benn njariñ du ko am man mënul leen ma dara kon ndeke borom pas-pas day gëm ni kenn mënalu ko dara lu dul borom subhanahu wa taala sabaat googu dafay feeñaat foofu boo toppee ci yoonu salaf saxaaba ya taabi'uun ya kooku defe naa yàggees na cee wax ci ay jataay di wane kenn ku ci nekk taxawaay yam doon am ca fitna yu ko doon gaar ca mbir yu mu doon dund waaye mu ànd ak sabaat gu mat sax kon loolu kat yow même bu la mbir yooyu a gaaragut yow moom alquran jàngi xisas yooyu moo tax bari yu mel noonu rawatina bu ñuy tafsir quranul azim def ay dars yoo xam ne xayaatu saxaaba lay doon mu bañ a nekk rek comme ni ñu koy defee organiser benn jotaay def xayaatu saxaaba wala boog def ko dars bu ñu paree ni est-ce que moom daal dem déedéet déedéet dañuy war a jug pour dem jëfe ji ko mbaa xam nga ni saxaaba yi yeneen bi loolu la leen doon defar da leen doon wax pour ñoom bu ñu jugee ñu dem jëfe ji loolu doon def ay jeexintal fu mu mën ci toll ci ñoom kon xayatu saxaaba xayatu taabiun te gis nga fi mu ne ñun li ëpp lu nu miin mooy xayatu saxaaba waaye ñi bënnal àll wa tuuti di yër gis nga fi mu ne bu fekkoon ci tey dañoo jël ab téere dañoo jël ab téere yow xamoo dara xamoo dara da nga doon dégg saxaaba yi rek ñu def ko ci dund taabiun ya xotti fekk ya dindi tur ya toog di la ko tarjamal wala nga di ko liir yow da nga yaakaar ni ñii ñooy saxaaba ya da nga yaakaar ni ñi ñooy saxaaba ya parce que saxaaba ya ñoo leen yaroon dañoo àggoon ci góorgóorlu ba dañ leen doon nurale ak ñoom ba ay nit ca ñoom ñi koy xool kennan jiw de bu la yonent bi gisoon dana la bëgg ndax yàggaa yaa nuroo kon loolu moo lay wax ni ñoom it dañ leen doon ñitti leen jiit yonent bi naan saxaaba yi benn biskat damaa toog ba mu yàgg benn biskat benn waaye dafa yoroon aw nag di ko di ko bayee dem ba mu yàgg nag wi ni ko gestu ni ko dama bëgg nga ragal yàlla yàlla binduma pour ñu may war di dóor saxaaba yi daal di jaaxle yonent bi bu ngeen ko weddee léegi laaj leen Aboubacar ak Omar Aboubacar Omar dañ ko fekkee wuñ ko de yonent bi sax fekkee wu ko fa sallallahu alayhi wa sallam ni koy parce que ñii am sabaat ñëpp Aboubacar ak Omar ñooy seeni imam waaye loolu bu paree lan lay def jeexintal ci ñoom mooy nettali yooyee ak diw def na nangam ab jigéen tëjoon na muus am naa nettali yooyu yonent bi da ko doon def kon uslub bi alquran di jëfandikoo moom la yonent bi jëfandikoo ku deful fekkantal gis loolu kon uslubul qasas yi dafa bokk ci jeexintal yi déglu xayaatu saxaaba déglu xayaatu taabi'un ah tafsir bu ñuy wax qisas yu mel noona yooyu di ko déglu su ko defee di ko wàcc ci waaqewal xayaat ci li ngay dund amaana yàlla mën laa defal tawfiq ba nga mën a dëgër ci buntu boobu ñeenteelu tomb bi ci gaawal wa min asbaabi sabati ala sunna al qasdu fi sayri def ndànk nag tomb bi nag tomb mu yitteeloon la lool ndax tomb la boo xam ne dama cee yàgg a wax sama bopp di ci yàgg a wax mbokk yi mooy def ndànk lu mawdoo bi am am solo liñ wax liñ jot nit yi lu mu am am solo leneen loo déggee feneen lu mu am am solo defal ndànk nag bul daw jéego yu ëpp sa doole al qasdu fi sayri defal ndànk loolu nag maa ngi ko tënkee ci wala ñi ngi ko tënkee ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xudu min al aamali ma tutiquun jaamu yàlla yi dégg ba ngëm yàlla di fees bu mu tax nga ni bëreet rek ni tey ma defandoo lépp déedéet loolu mënta nekk tey ma defandoo lépp déedéet xudu min al aamali ma tutiquun jël leen yi ngeen man li nga mën a àttan gis nga su fekkente ni dañ ni dañuy dem fii ba Pikine boo yëgee ne yow man ngaa yenu paan te yenu siwo aayu da ngay xool guddaayu fii ba Pikine yenul siwo ndax foofu dafa sori gis nga yore dafa gudd lool def ndànk borom bi nee na yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra sunu borom dafa namm ak jàppandal na oyof rek na nga koy man rek na nga koy yenn bu mu diis benn yoon bul yëg ni mukk liñ la teg dañ la koo gàll ci sa kaw mbagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis dafa dugg si ci nekk Aïcha mu fekk fa benn jigéen ni ko kii kan la mu ne ko kii de mooy diw si yonent bi xamoo kii kii day jaamukatu yàlla bu mag la julli katu guddi kii day woor kii day kii day kii day kii day dilim dilim rek ñun bu doon ñu nag kenn ku nekk day taf gémmiñam si kooku day commencé di ko ñeeka bëgg a mel ni moom waaye xool leen jàngalekat bu mag bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni déet Aïcha dama ni ma ya Aïcha mu ni ko xudu min al aamali ma tutiquun jël leen lu ngeen man de fa inna allaha fa wallahi la yamallu llahu hatta tamallu yàlla moom du yokkat moom mi ngi moom ma nga fi da ngay dee ba ko yow rek yaa yokkat waaye sunu borom moom du yokkat te yonent bi wér na ci sunna li gënoon li mu gënoon a bëgg du jëf ju bari waaye jëf ju sax lu am solo ngoo ñaata nit ñoo nekkoon jàmbaar ci ay jaamu yàlla tey mënatuñ ko bàyyi nañ ko donc sax ñu ngi def ci sunna alhamdulilah ba léegi waaye mënatuñ ko lu tax parce que dañu caa jëloon lu ëpp lu ëpp nag moom comme ni ko war a waxee tuuru rek lay def day daal di yàqu lii la yonent bi doon jàngal saxaaba ya te it nag saxaaba ya doon te yarante ci seen biir xam ngeen xissa boobu Buxaari nit li ci saxiixam Salman ak Abu Darda ñoom la yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam boole woon ah Salman ñëw benn bis kër Abu Darda seen soxna si Abu Darda ca waañoo mi ngi sol loo xam ni daal tilima tilima mel ni daal su borom këram ñëwul ci kër gi añ jot ñu ne ay ci leen ñu añ Abu Darda ni añ leen man suur naa mu ne ko suur naa mooy waxi la mu ne ko damaa woor mu ne ko sa koor gi de kon di nga ko doon fay kaay ñu añ laa wax man du ma la gane si ba nopp ngay bañ a añ mu wax wax wax mu kal ko fi mu ko kal rek mu ne ko bismillah ñu daal di añ kon koor ga dog na guddi jot mu fanaan ci kër ga fin ree rek fin tegee seen laf yi balaa ngaa wëlbati ko rek abut na daa jug xëcc si jaara bi jàpp commencé mu ne ko yee kaay tëddal waa ji tëddal ñu toogaat tuuti mu jugal mu ne ko yee tëddal baal ba ci kanam Salman bàyyi ko ba fajar gay bëgg a jot te waxtu wa nga xamante ni moo gën sax ca naafi la mu ne ko waa jugal ñun ñaar ñëpp ñu ànd naafi la ba mu paree ni ko gis nga Salman ni ko Abu Darda li ngay def kenn du ko def sa soxna si daa am ci yow àq te gis naa ne joxoo ko ko jox ko ko sa bakkan bi daa am ci yow àq jox ko ko sa njaboot bi am ci yow àq jox leen ko joxal kenn ku nekk àqam waaye ba léegi Salman convaincre wul Sal Abu Darda mu ne ko kañ dem ci yéen saa salaam biñ njëkkee yéen ci yàlla bi la mu ko wax mu ne ko Salman wax na la dëgg mu ne ko Salman wax na la dëgg inna li nafsika alayka xaq sa bakkan bi dafa am ci yow àq sa soxna si am ci yow àq kenn ku ci nekk jox ko àqam loolu moo gën a nekk ak maanute kon imam xasanul basri day wax ju am solo mu ne ee yéen sama nit yéen nit ñi def leen ndànk te ngeen jël lu mën a sax ndax kat yow koo xam ne sa borom moom sa liggéey bi utalu ko ab dee rek la am dee rek am na beneen riwaay da ne sa bakkan bi mooy fas wi ngay war fas wi boo ko teelalee xooxal te yeggoo foo jëm loolu dafay tekki ab xadis boo xam ni xëy na daraja saxaaba teewluwuma fi ma toll waaye la muy junj rek mooy fa inna al munbatta la ardan qataat wala dahran abqa waa de yàkkamti woon ba day dem tukki ñu war a dugg oto mu ni moom mbaamam mi ci kër gi doy na ko day bañ a paas moom lay war mu noonu dee ba ci digg yoon ba laa ardan qataat fa mu jëmoon yëgg fa wala dahran abqa mbaam ma dee na loolu mooy jël lu ëpp doo yegg fa nga jëm te it mën ngaa yàqu la ci yoon bi kon léeg-léeg bakkan bi te borom bi subhanahu wa taala nu mel noonu lay jëfandikoo ci Qur'an léeg-léeg mu indi aaya ji wax ci sawara tiital la lool ba nga tiit mu fàbbi ko bàyyi indi aaya ji wax ci aljanna léeg-léeg mu indi ay xisas yoo xam daf lay dëgëral comme ni ma ko doon waxee sànq léeg-léeg mu indi ay mbir yoo xamante ni ñu tëwoon lañ ay bakkan saay saay borom bi mu gën leen yooyu yëpp parce que bakkan ci boppam buñ ko bëggee yar noonu lañ koy yaree buntu boobu nag li tax may wax ni buntu la bu nu xawoon a aajowoo trop mooy dafa bari tey lu ñuy gis nit ku jàmbaare ci sunna lool ba nit ñëpp di yéemu ci moom mu xëy xëy rek xalal loolu day faral di am dëgg la sawaari yi yi ma doon lim yii gàllankoor am na ci waaye nag buntu bii moom ëpp moo ci ëpp ëppal moo ci ëpp ëppal nag lépp loo xam ne sunnaa ko jàngalam loolu du ëppal moom ëppal kay mooy sunna li na yemal fii yow nga bëgg a jël lu ëpp ah waa ji nga xam ne moom nee na guddi gi yëpp da ngaa bëgg a julli loolu loolu ah waaw ku ko man de da nga ko def waaye yu ko mën yomb na de guddi yëpp da nga koy julli bis yëpp da nga koy woor ah sa mbaax daa yegg ci sa dépense sax da nga koy joxe sa jabar gi xiif ah déedéet l'islam waxul loolu de wala tajal yadaka maglu ila unuqika mu ne la wala tabsutuha kullal basti ah loolu li koy waral mooy da ngay dégg ñun la Aboubacar ba yonent bi waxee dana ko loo bàyyi mu ne ko yàlla ak yonent bi doo Aboubacar de loolu tamit bàyyi ko xel dëgg la da ngaa war a roy Aboubacar nag waaye nag doo Aboubacar da ngay roy Aboubacar te nga xamaale ni doo Aboubacar ndax am Aboubacar yeggoon na ci dara ji joo xam ni bàyyi yàlla ko yonentam ci kër ga sans alal wàññiwu ko dara Aboubacar yaroon nag njabootam ci noo xam ni buñ nee ko bàyyi dépense mu ne yóbbu naa ko kër yonent bi ñoom ñëpp dañuy mën a muñ Aboubacar yeggoon na ci ngëm foo xam ne lu génn këram yàlla wuutalal ko ko kon nag royal Aboubacar waaye nag doo Aboubacar de maanaam boo koy roy roy ko ca ya nga mën a yem ndax bokku leen kon yu mel noonu faaw nga di ko bàyyi xel ah da ngaa war a joxe dépense lii rek nga am boo yëgee ne mën nga ko joxe de la la sax boo ko joxee kenn du la te doo loru kenn du la wax li nga def bon na waaye nag soo ko bëggee def ba lor sa soxna ah su ba wax dëgg yàlla bu fekkente ni. tabax yi dañ fee nekk nga ne tabax yi dafa araam damay dëkk ci mbaar yi kese kese kese ba faaw déedéet boo amee mbaar moom dëkk ci waaye nag bu ko yàlla indee lu gën mbaar jël ko nga dëkk ci nangam jii kat boo ko amee bu baax boo gisee lu ko gën a baax ci nga am ko jëlal loolu wàññiwul dara kon toujours diggu doomu dafa baax da ngay gis koo xam ni day jëfandikoo ci sunna dinaa ko wax mbokk yi ci ay jamono lii nag gis nga ñagab yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du ñu dañ mukk ci fu ñu fore taxaf xam naa du ngeen xamuk taxas mooy ay dégg ñëw ñagal ko ko ca ndax sàkku tiyaaba waaye luñ ko ko ñagal ñagal ñagal bunt yéen jàpp ni day dugg ci bunt ëppal kat buñ ca yegsee dañ cay teel a wàññeeku lu tax ndax dañuy jàpp ni mu jur ay mbir ah mbir mi bu yeggee ba nga jàpp ni relation yi war a dox ci diggante góor ak jigéen dafa war a tara tara tara ba ndaw sant yëkkat téléphone woote ak góor ah déedéet loolu ma amul cosaan ci l'islam amul cosaan ci l'islam bi dëgg la nag ay borom xam-xam ñoom bu ñu nekkee ci seen réew ñu def ko fa masala bu jibee dama ne borom xam-xam yéen ne ca réew ma dañ leen laaj masala moom ñoom ñoo gën a xam la seen réew laal waaye lay cosaan daal mooy fi yëg la ñuy waxante par téléphone lu dagan la góor mën naa woo jigéen jigéen mën na koo nañ wax lu dagan yam ca jigéen dina wax qawlan maarufan góor gi na wax wa qulu qawlan sadidan mbir mi jeex waaye ndax daganut déedéet wax dëgg yàlla nag mbir mi yeggut foofu jigéen ji dagalut mu jàkkaarloo ko góor ki léegi bu may wax danga may wan gannaaw ma wan la gannaaw nga toog fee di wax ah déedéet loolu amul ci lislaam dëgg la nag xudu xajrakum nañ jël suñuy matukaay naa faj samay xef naa feggu naa nangam ah déedéet beneen bi ci des moom mooy jëmmi jël alal tamit di ko joxe jëmmi jël alal di ko joxe di nga gis koo xam ne la mu jàpp moom mooy maanaam moom benn dërëm wër ta fanaan ci poosam déet da nga am àq ci sa bopp sa soxna daa am ci yow àq ndax yaa ko indi yaa ko war a dundal bul fàtte loolu bi su ma ko toppoon damay ragal tomb yi ma toftali yi def du ñëw waaye xudu min al amali ma tutiqu nit ki dafa war a jël lu yem lu digg doomu léegi da ngay gis ay nit yoo xam ne yu góor-góorlu woon nañ alhamdulilah ci buntu bi waaye fan lañ mujj da ngay gis dañuy ci la asfali safilin dañoo wàcc wàcc wàcc ba bëggatoo sax mel ni ñoom lu tax parce que da ngaa jël loo mënut da ngay def loo man moo tax saxaaba yi ba ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko fekk fa Aïcha yonent bi ni muy jaamoo yàlla ñu wax ba yeggal kii naan man dootuma ju sa guddi kii naan dootuma woo lekk damay woor kii naan yonent bi mu ne hey maa leen gën ragal yàlla foofu damay lekk di naan di julli di tëdd ku xemem leneen loo yaakaar ni moo gën a baax sama sunna foofu bokk ko ci man kon kat nag tëddal nga jox bakkan bi mu nelaw ba yeewu nga naafila la ngay naafila ci guddi gi alxamis ak altine boo ko mënee woor baax na soo mënee jël altine kese baax na su dee ayaamul biir nga man baax na noo ko mënee baax na l'essentiel daal na nga góorgóor te xam ne mbir ñi si saa bokk la njëkkante la na nga jël loo man bu mu tax nga yoon jox lu ñu wax rek nga ni lii mënuma ko da ngay ñàkk tiyaaba mu lay romb rek it nag kon iqtisaad mooy digg doomu ci mbir mu nekk dafa am solo mooy alqasdu fi sayir yoon wi daa gudd bakkan bi nga war te moo la war a yeggee boo ko lottalee fii doo yegg defal lu yam dëgg la nag da ngay liir ci ay imatu salaf ñoo xam ne wax dëgg yàlla yeggoon nañ ci jaamu yàlla foo xamante ni allahu bihi alim loolu nag xëy na nga di ko ñaan yàlla te di ko jéem ci mën na la caa dimbali loolu tax Abu Bakar Siddiq dafa dëgg Hanzala ni ko Hanzala na nga def mu ne ko xanaa xëy rek nekkum naa fekk mu ne ko tuuga waay li ngay wax nu ko jullit di waxee mu ne ko waxan kay Abu Bakar wax ak Hanzala dëgër ci lim dëgër mu ne kañ dem ci yéen fasal ndax moom kat walaw rudduhu ila rasuli wa ila uli amri minkum la alimahu alladina yafon bi lu am rek nañ ko delloo ci ñoom yonent bi ne ko waaw lu xew mu ne ko damaa seetlu ni ñun bu ñu dikkee nga waar ñu fàttalilu suñu xol yi day fugg di jonjante kaw asamaan sa dañuy mel noo xam ne waaye bu ñu ñibbee soxna si ne nijaay kii ñi bàyyi rek affaire yi commencé rës yonent bi reetaan dal di jël loxoom dóor ko ci dënn ni ko Hanzala ndànk ndànk rek na gis nga ni ngeen di mel bu ngeen nekkoon ci man su ngeen ko doon mel seen biir kër yi da ngay laa xattib koñ rek malaa ko jox la loxo di la nuyu di la ndokkee ndax sellaay gaay tax sellaay gaay tax ni ngeen di mel ci yonent bi ni ngay mel boo yëgee waaraate ngëm yàlla état bu ngëm bi ngay toll su doon loolu mooy continuer chaque jour da ngay laa xarte rek mu ne la saafaat la saafaat kumul malaayika malaayika di la saafat te loolu xam nga lu am la alxaafid alxaafid ibnu kathir mi ngi koy nettali ci téere bu am solo isaaba di wax ni am na ci saxaaba yi ku yàlla nattoo woon ab feebar mu muñ ko muñ bu jéggi dayoo muy Imraan ibnu Xusayn su fekkee fàttewu ma feebar boobu ñu tuddee lu mel ni hémorroïde wala ñu la amoon mu ni malaaka yi dañ doon ñëw këram par fajar di saafonteeg moom mu ne fa kaanatil malaaikatu tusaafihu waxta saxaab ndax ngëm yàlla gi fi mu toll ak ni mu mënee wala muñ kon yu mel noonu maanaam ngëm yàlla gi kat lu mu gën a am gën a baax waaye nag mbir mi kat du dëkk moo tax yéen yàlla da doon kàpp sallallahu alayhi wa sallam mbir mi faw ka ak kafa am ci du ma ree du ma siggi du ma kontaan du ma lekk lu neex mbir mi du noonu de loolu beneen xeetu diine la bokkut ak l'islam dëgg la da ngay ree fa war a ree jotee waaye nga ree lu yem wax fa wax jotee soo paree nga noppi noonu la jullit bii dundee lii nag mooy manhaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mi doon waaraate bay bëtam di xonk cur mu wóor la ni kii kafut fi ne ci lim nekk am na lu mu yëg ci xolam moo doon kaf ba saxaaba yi reetaan parce que lu nekk dafa am palaasam su lii jotee nañ ko def su lee jotee nañ ko def boo ca paree pare ko ci kon mi ngi noonu juróomeel bokk na ci kon ci gaawal daf leen waxtu mi ngi ñuy bëgg a dab wa min al asbab asbab sabat mulazamatu al ulama wa sohbati salihin al akhyar jonjoon teeg borom xam-xam yi mulaazama leen mulaazama nag su ma ko ràmmee mooy ni ker di def ak boroomam takk ndeer xam ngeen takk ndeer takk ndeer ni muy def ak sa jëmm loolu mooy mulaazama koo xam ne moom da ngay taxaw ak moom rek ci borom xam-xam yi ak ñi nga xam ne jàpp nga ni ñii ñoo la gën a baax man nga ko tuddee takkante xarit man nga ko tuddee takkante ndey di ko yéen a xam baat yi ni ngeen koy tuddee ala kulli xaal fexe daal ba ñi nga jàpp ni ñii ñoo la xam-xam ñii ñoo la raw ñii ñoo la gën a ragal yàlla ñii day liñ may xeeñ bu dee dëgg la dafa mel ni ay nit yàlla lañ ñooñu boo leen xeeñtoo ba ñu xeeñ la fexeel jege leen nga ànd ak ñoom loolu dafa bokk ci wasaayilu sabat yi gën a dëgëral xam ngeen ni kat mbokk yi doomu aadama ci jamono bu nekk dafa aajowoo ku koy fàttali ndax day fàtte daa aajowoo ku koy laahi biir ndax daf koy soxla dafa aajowoo ku koy jubbanti ndax day day dëng yoon wi day aajowoo ku koy xamal ndax dafa réer wallahu axrajakum min butun ummatikum la taalamuuna shay'an kon bu ñu la xamalul doo xam yàlla nag dafa def ni dafa am ci nit ñi ñoo xam ne mafatixu lil xayri maghaliqu lil shar te loolu rob na ci xadisul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Nasir mi ngi koy wéral ci sul ahadis sahiha ci xadis ab anas yent yàlla bi nee na inna min annaasi naasan mafatixu lil xayri maghaliqu lil shar am na ci nit ñi ñoo xam ni ay caabi lañ yuy tëj buntu safaan ñoom ku taxaw ak ñoom safaan daanaka mën naa bañ a yegg ci yow ndax safaan fu mu bàyyi ko rek yàlla daf defal tawfiq mën kaa tëj am na nit ñoo xam yàlla daf leen defal ay caabi lañ yuy ubbi buntu yiw taxaw ak ñoom yiw da lay yomb xadisu anas moo ko solo te xadis la bu wér mafatix lil xayr maghaliqu lil shar ñoom dañuy mën a tëj safaan moo tax ànd ak ñoom day tax ngay mën a mucc ci safaan dañuy tijji aw yiw ànd ak ñoom day tax yiw da lay yomb kenn ku ci nekk nag faw mënta ñàkk mu am lu mel noonu moo xam góor la moo xam jigéen la loolu moom yàlla baaxee na ko xeet wi catégorie boo dem am na ca su ne ci borom xam-xam yi da ngay gis ni doomu aadama ju nekk léeg-léeg dana gis yàlla wërsëgal ay borom xam-xam yoo xam ne la chaque ñoom kat mën naa ne duñ ay borom xam-xam rek yem ci waaye ay rabbaani yoon lan te loolu la yàlla sant yàlla subhanahu wa taala mu ni kunu rabbaaniyiina bima kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun njàngum alquran ji moom ak njàngale meek yar geeg nekk xam-xam bi bu la jurul nga nekk ar rabbaani mooy li ngeen tudde nitu nitu yàlla loolu la ko war a fi waxee bi maanaam kalima li ngeen tudde nitu yàlla ay nitu yàlla nekk leen ay nitu yàlla bima kuntum tuallimuuna alkitaab alquran jii ngeen di jàng di ko jàng daf leen war a def ngeen nekk ay nitu yàlla wa bima kuntum tadrusuun jàng gi ngay jàng xam-xam di jàng alxuraan moo la war a def nga nekk nit yàlla kon jege borom xam-xam lu am solo la moo tax salafu saalex dafa amoon méthode bu ñu daan jëfandikoo ci seen jamono mu la ñu tuddee mulaazama mooy taqoog nit diw mii kat gis naa ko muy borom xam-xam alhamdulilah yàlla dénk na ko ko góorgóorlu ko nangam la gis naa ay jikkoom moom kat yàlla baaxee na ko dama ni taqoog moom ñim moom bu la waxul sax ngay gis muy jëf rek da ngay suppeeku yow te doo ko yëg déglul imam ibn alqayim rahimahullah muy nettali ci sëriñ boobu ibn taymiya mu ne wa ilmu llahi ma raaytu ahadan atyaba aychan minhu qatt maa ma kaana fii min diq alaysh walbus wa xilaaf arrafahil ibn alqayim day tagg sëriñam boobu ibn taymiya nga xam ne daf ko mulaazama woon yaakaar naa sax mooy nekk li ni eggoon naag moom foo xam dafa daan fóotal comme ne jigéen defal góor fóotal ko mu sol ay yéreem mu ni moom bokk na ci li ko gën a marqué ci dundub cheikh al islam ibn taymiya te waxuqa lahu ibnu taymiya wax dëgg yàlla ku ko xam mu yéem la ci góorgóorlu ak ragal yàlla yal na yàlla fay ko yiw mu ni gisuma koo xam ni moo gën a teey ak dund gën a am ab dal gën a nuru kuy ku féex ah te mu ni sax da ngay xool ci kanamam mu ni taluuxu nadratu naimi fi wajhi mu ni boo ko xoolee da nga yaakaar ni kii kuy noos la te jamono boobu sax amoon na xëyut ndékki dafa ànd ak ak dal ba yow loo jaxasoo jaxasoo boo ñëwee mu buñ mosaan a am problème ba àddina xat ñun ndongo yi mu ni buñ ñëwee toog ci kanamam laaj ko xalaat bu waxee ba noppi dafay mel ni dañoo yoroon bërigo mu yenn ñu tegal ñu ci suuf ñu dem leen ibn ibn al qayyim ci téereem boobu di alwaabilu sayyib mu ngi see wax yi may wax mu ni saa bu ñeegtee dañ koy fekk mu nekk ku dal ànd ak tey ma nga ca kaso ba suba ñu ngi koy tiital naa ko boo néewul kaso di nga dugg kaso borom xam-xam yi doon bind ay téere di ko xasat di ko wax ay safaan muy tontonteeg ñoom dëkk ci di woor ak di góorgóorlu ci ay jàpp maam li mu bëgg a wax mooy problème yi mu yenn woon li muy bari bari bari yàlla def ko defaloon ak dal ba boo xoolee xar kanam da nga yaakaar ni kii kuy noos la te amaan na sax boo demee amut lu mu dékkee ñaareel bi moom mooy problème yoo mën a am boo dikkee mu dalal la delloo ci alxuraan te loolu mooy njariñal taxoog nit bu baax. taqoog borom xam-xam da ngay jël àddina yadiqu alayka al ard bima raxubat fekk jëru ko woon suuf si bëgg xat ci yow te fekk yaatu na loolu ndeke jaru ko lu xew yaa bëgg a fekk lu toll ni mbaxana nga def ko mbaar mu dalal la wàcce la ba nga wàcc te loolu bari waa na moos loo koy gis ci ay ima yi daanaka koo jàng seen dund moo ci fees xam naa yéen a ngi fàttaliku imam qisab imam ahmad ibn hanbal ca jaafar al anba abu jaafar al anbari ba mu dajee loolu pour wan lañu la maanaam takkoog ku baax li muy def jeexintal ci nit ki ci mën a am sabat imam ahmad imam ahli sunna wal jamaa mi ngi ko amee ci mahmad xalq al quran qissa boobu xam ngeen bi muy ñëw it moom it nag wax dëgg yàlla dëgg la amoon nag sabaat waaye nag jonjonteeg ku baax da koo dolli sabaat nee na abu jaafar al anbari dama jéggi dex gi abu jaafar al anbari ni tëll yegg si ni kan ci yéen mooy imam ahmad ma ne ko maa ngi nii mu ne ko innaka al yawma ra'sun wan naasu yaqtaduuna bi gis nga fi mu nekk yow bopp nga ca kaw la la nit ñi xool nit ñi yëpp yow la ñuy rey gis nga boo demee ci kanamu ami Mamoun lu mu la fitnaal fitnaal fasbut na nga sax wala taqul bi xalqi alquran alquran bi ndéef la woon bu ko na nga wax mukk ndax boo ko waxee tudillun naasa jamian di nga sànq nit ñi imam ahmad sëgg jooy ba jooy métti waa ji dara dem mu téye ko ni ko li nga wax laa bëgg nga dégtalaat ko sama nopp bi ndax daf maa dolli ngëm waa ji jaaraat kon ndiki jonjonteeg ku baax day jur loolu beneen bi am na beneen waay boo xamante ni ab kaw kaw la sax xam naa xamaan na ca kaw kaw ca kaw kaw ya la bokk mu ñëw bi mu ñëwee fekk imam ahmad moom it mu toog bi mu njëkkee mu ne ko gis nga mamun gis nga amit mu amut lenn lum la mën a lu dul reylaat jaasi nga dee te am naa yaqiin ci ni bu la reyee nga dee ci jaasi da nga am shahada amal shahada nga dem àjjana mu jeex imam ahmad nee na même damay ne ca kaso ba su ma fàttali ko waxi kaw kaw ba rek damay gën a amaat sabaat kon gis nga nekk taxoog nit mu di la orienté dina jubbanti ak imam di doy ni imam ahmad di ko aajo kon keneen ku dut moom taxut di wax kon doomu aadama ak fu mu mën a doon te waajoo ji mu ngi tuddoon jaabir ibni amir li mam ne waaw kii may waaw kàddu yi kii koy wax moom fu mu jógee xanaa borom xam-xam la ñu ne ko kii de jaaykatu kii la sax yére jaaykatu leen yére yooyu ñu defaree leen lay jaay moom daanaka du borom xam-xam sax kon nit ki fexe jéem a am ku baax ku mu takkool di jonjoon teeg moom di dimbalanteeg moom dëgg la même bu dul borom xam-xam man ngaa gis ko xam ne yàlla da koy tàggat baaxal ay jikkoom léeg-léeg nit dina ñëw di jàng ci yow nga naw ko dëgg la moom dalaa naw ko di la nawee xam-xam yow nga naw ko ndax ay jikko ndax yàlla nag muy séddale leneen gis koo xamante ni sax jigéen la yow ngay góor ba noppi ngay roy ci moom lu tax parce que yàlla moo ko defal tawfiq yàlla mooy séddale noonu te loolu nag day wane màggaay yàlla ndax day maye maye maye maye maye maye ba da nga naan kii mayee du jeexal te loolu nga war a wax ndax kooku du jeexal kon buntu boobu tamit mu tënku noonu donte am na nu mu mënoon a gën a yaatoo beneen bi ci des mooy bokk na ci yi tax sabaat xam naa ñu tab yu bari ndax waxtu dab nañu as sabaatu ala al xawf min suuil xaatima tiit ci sa mujjantal ñaaw bokk na ci yi tax nga am sabaat al xawf min suuil xaatima muy saa boo xëyee rek del laaj sa bopp fooy mujj ci looy mujj ci lan nga nar a mujj mbokk yi bu waxtaan bi yemoon fii man bu ma jógee ma laaj sama bopp ci lan laa nar a mujj kenn ku nekk ci yéen mu laaj boppam ci lan lay mujj est-ce que am nga yaqin ci ne li nga nekk ci ngay mujj ñaata ci ay nit nga xamoon ñoo xam ne sax du ñooy dégg seen siira ñoo doon gis la ñii di ay góor ñii di ay jigéen ñoo xam ne seen ak njàmbaar ci sunna fi mu tolloon yàlla rek moo ko xam koo xam ne wallahi da ngay ñaan yàlla allaaxira bu la yàlla dee xisaab na jël sa jëmm ji boole ko jëfi waa ji àtte la maanaam yow bëggoo say jëf jëfi jiw laa bëgg dem nga ba yegg ci ñaan yàlla say jëf nañ ko sànni jël jëfi jiw àtte la ci kooka bu demee ba wadd génn ci mbir mi ci nga xam ne mbir mi lu tiitlu la maa ngi fàttali ala ujalatin saria ndax mën a romb fàttaliku leen ni mbokk yi yéen ci yàlla bi nee na kenn ku ne bi mu nekkee ci biir riwaay ñeent fukki guddi ñeent fukki guddi ci ñetteelu ñeent fukki guddi ci riwaay yi gën a dëgër am yeneen riwaay yoo xam avant loolu sax donte mi ngi ci muslim ci la yàlla yi yabal malaaka mu bind yéppam ba bindaale ashaqiyun am sa'i keroog bi ko yéen ci bi nit ki lee saxaaba yi dañ ne ko ñun day kon fa fiimal amal jërul ñuy liggéey kon kay nañ toog rek xaar dogal ba mu ni déedéet i'malu kullu muyassarun lima xuliq ku nekk yàlla da koy jàpp dalal fam ko bindal bu dul loolu rek mu neex waaye lan moo fi indiwaat nit ki dana góorgóorlu dem ba dara def doxut digganteem ak lu dugg dugg àjjana sebre mu def jëfi waa safara loolu mooy mooy ci bu fekkoon loolu jóge na fi mbir mi day baax kon boo nekkee tey ci sunna nga xam ne amatoo problème mu ndax li ma nekk dëgg la waaye problème bi ngay am mooy ndax dinaa ci dee aka yey ñaata ci ay saxaaba ñoo murtad génn ca xorobu ridda ñu rey leen ci ñoo xam ne gis nañ yonent bi daan dégg baatam ba mu di leen jiite ñaata julli genn julli goo julli rek ci mbooloo ñu tegal la ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar nga jullee ko ci ginnaaw yonent bi ñaata daraja lay doon nga jullee ko ci biir jàkkaam da nga xam ne ay junni junni ràkk lan la koy fayal muy ñaata tiyaaba kooku julli na julli yu toll noonu ci ginnaaw yonent ba nag mujjut fenn fudut fii yow nga am yaakaar ci ni kon li nga nekk da nga ciy faatu ah loolu nga yaakaar ay nit yoo xamante ni fekkee nañ ay xare ba saxaaba yi di yéemu ci ñoom diw day nangam nangam ak xam ngeen shahada nga xam ni toq deret bi njëkk toq ci suuf si te la sunu borom di fomp say bàkkaar yépp xanaa bor la lay bàyyee nga tàbbi àjjar ba pare nga mën a génn ca loola dem ca leneen nga gis koo xam ne daana góorgóorlu di muuru bay diree ko alhamdulillah ci suuf jàmbaare lool baatam doo ko dégg da ngay laaj sax ndax kii dina reetaan la da ngay laaj ci est-ce que dina ree ndax ni mu amee fulla ni mu amee fayda ci boppam góorgóorlu xëy xëy rek mu reeku di sollu ba lii yu ñu gis la yéen bu ngeen gisoon ñun gis nañ kon koo xam ne dafa góorgóorlu woon ci sunna yegg ci tar ba nit ñi sax ñemewuñ ko woon mu mën a dem ba watu sikkimam buubal tubayam sol ay costume nekk ca yeneen bay jëflante sax jëflante riba ci banque yi may wax netti lu may xurafaat de li am ci mbir mi li ñuy dund laay netti li fi mu ne nii loolu mbokk yi képp ku toog sa biir kër te tiitalu la xamal ni ngëm gi nekk sa xol ngëm gu baaxut la amalu la njariñ waaye da ngay tiit ndax li nga nekk di nga ci mucc wala déet am nañ suñu mbokk moo xam ni maa ngi fàttaliku li may nit li guddi gi mu amee woon mi ngi mel ni tey ñu toog booba yàgg na booba defe naa ñoom sax yoragu nay soxna yàgg na ñu toog di waxtaan mbokk mi kaddu ga nu ko ko wax la ba léegi def maa yéeg mbokk mi mu ni yaa xi yéen ñëpp bu ngeen jógee na ngeen ma ñaanal sabaatan man bu may génn ci sunna jigéen man na may génn de bi mu koy wax maa ngi toog mbir moomu tey bëgguma leen nettali sax ci lan la nekk tey te ñoo doon àndi góorgóorlu mbokk moom maa ngi fàttaliku ma sama fekk sama kër sama néeg maa ngi taal rajo bi di ñuy déglu da dég da doon jàng xoraan waaye dégluwul woon leneen ci leneen lañ nekkoon waaye pour wan ne mbokk mi ni mu góorgóorloon ni mu jàmbaaree woon rajo baa ngi tàkk ñu ngi wax dëgg la li ñu def njuumte la donte bàyyi woon ci woon xel mbokk mi dafa tëb rek daal ci sama kaw téye ma nii mais yow xanaa da nga dof alxuraan jàng arsale ma wax ma loo xam ne te kat saam ndongo la woon bi fit wu mu am ba ñëwee ma def ma noonu yéem ma xam naa nga ma ko yóbbee woon naka la Qur'an bi jàngee ngay wax wax wax yu garaaw sax ma ne ko maa ngi jéggalu damaa juum mbokk moom tey bu ma leen waxoon ci lu mu nekk wallahi di ngeen xam ne mbir mi jar na tiit am na ay nit yoo xam ne fii dañ leen a xamoon ci góorgóorlu ci jàmbaara ni tukki buñ la waxee tey lan nekkee fan nekk ma allahu biha alim yàlla rek a xam ñii fitnatu nafs seen bakk na leen dëpp ñii fitnatul maal ala leen dëpp multazim ñii abil meer parce que amagul woon liggéey parce que élève la woon da doon jàng bi mu demee bañ fal ko rek iltisam nga la jël summi dafa mel ni daal dafa jëloon sunna def ko occasion pour yéeg moo tax li kenn ci suñu masaayix yi naan ñu bari ñu ngi naan bu ñu amee dañuy dimbale daaw mu ni bu ñuy am di bàyyi daaw bi waxam jooju dëgg la dëgg la da ngay iltisam parce que da ngaa ñàkk est ce que yow bu la wërtigu àddina gane fi woon di nga continuer mel ni nga mel am na koo xam ne fitnatu nisa jigéen ñoo leen fitnaal fitnatu subuhaat fitnatu sahawaat ay bànneex xam na koo xam ci mubtadia ya moom fa la dem faf tey am na koo xam léegi sax saaxir la faf fitnatul manasib koo xam ne tey ay téeméeri téeméeri téeméeri nit yoo xam ne ñëw nañ ci sunna tey te tey tiyaaba lañ waroon a doon alaxira ndax xam ngeen ni ku góor góorgóorlu ba gindi nit di nga jàam pourcentage alaxira fitnay manasib post yeeg yi ñuy falaateeg yooyu tax nga bàyyi sunna gannaaw yi yëpp mi ngi am kon mbokk yi tomb yi ñu waajaloon ëppoon na yooyu waaye dafa mel ni waxtu dat nañu ala kulli xaal tomb bii ci mujj day bokk na ci tomb yi am solo boo ko booleeg tomb bañ tàmbalee muy mooy ci quran dafay bokk yi gën a am solo nuy góorgóorlu di ñaan yàlla subhanahu wa taala ndax bokk na ci wasailu sabaat yi gàttal waxtu moo tax tudduñu ko mooy addu'a muy ñaan yàlla surtout lu mel ne rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab di ñaan yàlla saxal la di ñaan yàlla dool la iman di ñaan yàlla musal la ci sawaarix yi wallahi nga yii sawaarix benn benn xëcc la ci rek ñaan yàlla sax gàtt fan bañ koo fekkee ko gën ñaan yàlla nga gàtt fan bañ koo fekkee moom moo ko gën lu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain
salaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ñu ngi ñaanal yàlla subhanahu wa taala oustaz yàlla daal di barkeel li nga xamante ne mooy xam-xamam daal di koy dolli may ko ilman naafian wa risqan tayiban wa amalan mutaqabbala ñun tam yàlla may ñu ay xol yoo xamante ne nii bu ñu déggee rek dañu daal di jóg pare pour daal di jëfe ci li nga xamante ne nii moom lañ ko jëlee amaana li des ci li xaaj bu njëkk bi ci waxtaan bi muy li nga xamante ne moom la oustaz mu doon pour gaaral ñu ko mën nañ ne jàll na mu def ay quelques questions yoo xamante ne ni mbokk yi sàkk woon nañ ci ne ñu des ci waxtu bi ñu jéem koo leerlu bu ko defee ñu mën cee jëriñu bu baax a baax question bi njëkkoon ak mbokk dafa wax mu ne bu ñu seetloo bu baax a baax kenn ku nekk ñun bu la fekk boom bi ñuy doog a tàmbali ñëpp di jéem a góorgóorlu ci sunna xam-xam bi ni mu ñàkkee woon waaye lu ñu saawaree woon ci ay jëf nekkoon ñoo xamante ne luñ mësaan dégg ne sunna la rek dañuy pare pour daal di jëfe ko moo xam ci ay woor moo xam ci ay julli moo xam ci ay façon ibadat bi mu mën ci nekk waaye tey xam-xam bi dafa gën a bëri nit ñi gën a gàttal yu jëf muy laaj loolu lan moo ko waral ak yan dénkaane ngay indi ci loolu ah laaj bi dégg na ko xaaral tuuti waaw ay war naa maase mu ne dañoo seetlu ne bi ñu ñun ñëpp bi ñuy doog ci tàmbali di góorgóorlu sunna wala ñu bëri bokk ci ñun lu ñu mësaan dégg ne sunna la dañuy pare pour daal di koy jëfee nekkoon ñoo xamante ni ay jàmbaar lañu woon ci wàllu jëf lu ñu dégg rek dañuy jéem a góorgóorlu yàlla suñu bopp daal di ci daal di koy jëfe te jamono jooju xam-xam neew fu woon waaye bi ñu seetloo ne xam-xam bi dafa gën a bari kenn ku nekk yokk nga ci wàllu xam-xam waaye jëf bi dafa gën a néew muy laaj lan moo waral loolu ak lan mooy saafara li
alhamdulilah wasalatu wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbi ajmain ala kulli xaal loolu day ci li nu jàpp am nay sabab yu bari te it noonu ma ko géndee ko noonu la amee ci ñun ñëpp di isaara nañ ko ci ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ci sunna ci ñun ñi ëpp ci ñoom ñu xéroon lañ ci jàng Qur'an xéroon ci sunna donte xam-xam ba bariwut woon loolu nag ci li ñu seetlu ñun am nay sabab yu ko waral bi ci njëkk doomu aadama lu mu miinagut moom lay gën a fonk lu mu miin doomu aadama lépp loo xam ne miinagu ko moom lay gën a fonk ci lu mu miin sunna boobu dafa beesoon miinaguñ ko moo tax saxaaba ya lañ doon dund ba yonent bi dund te mu jëntal ko dundatuñ ko mbir yi commencé parce que mbir yaa ngi bari kon mbir buy doog a ñëw àndaaleeg beesaayam ak nit ni mu xamee kumpa ni mu ni mu bañee kumpa loola ñàkk gaa miin day waral mu sawar ca lool tey amaan na miin ji am na sunna bari lool li benn mag magum magum daara daan wax buñ ne mbokk yee baax muy dañoo bareegul rek bis buñ baree baax gi day wax jooju da daan metti ñi ko daan jégg waaye nag dëgg kooku benn la beneen bi ci des mooy maanaam mbir mi yittewoo xam yittewoo xam am na solo trop waaye yittewoo jëfee ko solo maa xam nga ne as-salafu saalih ñun lii nu am ñun amuñu ko woon téere yi bari lool masala moo soxla moo tax xam naa kàddu la goo xamante ni dina dina dina booyal gémmiñ yi ndax du ñu dañ di ko wax gis nga bi ñu gisee téere yi tàmbalee yomb ordinateur yeeg internet yeeg xam-xam ni fépp ci laa ne woon mbokk yi barkeb xam-xam nuyoo na mi ngay dem yoonam te wallahi wax jooju tey laa juróomi at ci ren wala ñeent bokk al aqal maa ngi fàttali kàddu gii ma di ko wax maa ngi koy yeesalal bis ni ki tey xam-xam moom barke baa ngi dem asalafu saalih ñoom Abdullah ibn Abbas ñoom dañ doon wax ni ñoom seenam njàng du woon comme ñun nit ñi def përëx përëx dem ñoom dañ doon jàng fukki aaya tuuti dem jëfe ji suñ ko jëfee ba yëg ni ñu ngi koy jëfe jëlaat leneen kon boo seetloo ñu njëkk ña ñoom li ñu doon xam lu néew la waaye bu ñu demee dañuy daal tàmbalee yar seen bopp ci jëfe ko mbir mi daa bareendoo suñuy bët li ñuy jëlandoo ëpp te it nag tiit lu lool ndax fajjala alay na
kémtalaay li ngay xam li muy gën a baree muy nekk fagde ci sa kaw kooku bañoon a xam lu bari sax moo ko tey ndax xam lu bari te gisoo ko dafa bokk ci li lay alal tey nag xadis boo wax gaa yi xam nañ ko qissa boo